yàlla ci li nga xamante ne moom mooy première question bi kii nag oustaz ab jur bu jigéen la moom nee na dafa am euh, ku ñëw di bëggante ak doomam bëgg ko takk waaye moom nee na ak papaay doom ji dañoo divorcé te ñoom ñaar waxatuñ moom nag muy laajte ci lislaam ndax lislaam may na ko possibilité mu mayee doomam te du wax ak ki nga xamante ne moom mooy papaam wala papaam sax faf du ko yëg jërëjëf Kya Kya laaj nga laaj bu am solo hmm. muy doom ju jigéen jun war a maye te ndaw si ko war a maye di yaayam sëyatul ak pàppam maanaam ndaw si amul droit maye ko moom yaayam te baay bi d'accordul même bu ngeen sëyatul même bu fekkee sëyatoo ndaw si toll ci ñu war koo maye lijjantil ba xam fan la baayam nekk nga ni ko allo mu ne la allo nga ni ko sa doom ji ma am ak yow muy kiyaa mii toll na ci war a am boroom kër am na ku koy bëgg si ma ni woon naa la woo waxtaan ceeg yow xam nga loolu du waxtaanu juboo du waxtaanu bëgg a dellu mais charia moo la ko sant mm-hmm. su la papa ji ne d'accord naa wóol diw wala xoolal ku ko mën a maye mu maye ko sa jaan wàcc na mais amoo droit yow ku jigéen maye doom ju jigéen joo am joo sëyatul ak baayam sans accordu baayam ndaw si ne ci yow amoo droit maye ko sans baayam yëg il faut nga wax ko ko hmm. ba ci bu nu toogee ci jàkk ji yenn saa yi da ngay dem ci takk dégg kiy maye ne maa ngi maye diw ci farata yàlla ak sunna si yonent bi te foofu dañ la exiger ni yaa ngi maye diw ci ndigalu baayam. da nga ko war a wax. waaw maanaam bul jël yow sa responsabilité ne yaa ngi koy maye. Mm-hmm. boo ko tuddul tamit fasal ci yéene ci sa xel ni maa ngi maye kiyaa ci ndigalu baayam. léegi nag mu amaat beneen sew-sew. Mm-hmm. mooy bu fekkee ndaw si. moom jullit la. te papaam nekkul jullit. papaam du ko maye mais papaam da ko maanaam papaam day joxe accord. waa accord papa ji daal faaw mu am. day ñëw. Mhm. mais papa ji mënu koo maye parce que bokkuñu diine ñoom ñaar. d'accord day am kum ko délégué. day am kum ko délégué. kooku représenté ko en tant que jullit. parce que moom papa ji tuubagul pour dugg ci l'islam. d'accord. léegi donc jigéenu jullit pour nga maye ko baayam day d'accord. même bu fekkee sëyatoo leen du ngeen wax yéen ñaar ba ngeen gëjee déggante yàgg na yaa nga France mi ngi Sénégal yaa ngi Amérique mi ngi Sénégal ndaw si màgg na ndax am na ñoo xam ni bu ñu xasee fase jigéen dootuñu toppatooti njaboot. Ah. dañuy fase jigéen fase waale doom yi. ok loolu laa a oustaz. daganul baaxul. léegi ñooñu nag nan la ñuy def ñoo xamante ne par exemple seen papa da leen a abandonné. ko xamul parce que parce baay bi wàcc na sharia deful li ko sharia sant. Mhm. mais bu mayee jotee ne yaay ji doxal sharia dañ koo topp gisul nag par exemple. xamuñ fu mu nekk. non buñ ko gisul xamatuñu fu mu nekk. waaw su boobaa rakki baayam mën na ko représenter. d'accord. mën na jël responsabilité. diw mii ñuy maye doomam mag moom ma bokk ndey ak baay. mi at ñi ngi wër baayam gisuñu ko wër nañ ko fu ne ba am na sax ñu ko tàggee jàpp ni faatu na ndaw si war naa sëy que ñuy méngale ay mbiram ci moom mu joxe accord pour ñu takk ko mooy rakki baayam hmm. su bàyyi di dund deewul amul ku am droit maye doomam bu jigéen saa mu yëg ko loolu amul benn sëriñ sax bu am martabay di ko def ci sharia foog nga ni alu sa doom sàngam am na ku ko bëgg maa ngi koy maye nga maye ko doom bu jigéen yàlla daf ko jox cër ci baayam bàyyi leen di maye doomu jàmbur sans ndigalu baayam baay dafa am solo bu leen mere seen jëkkër yi ba maye seen doom sans seen ndigalu baay parce que dana tax bu takk jotee bu ñëwee ci jàkka ji gis baay toog ñu xam ni bàyyi ci ànd waaye sa baay di dund tàqalikook sa yaay Hmm. ñu di la maye sa baay na ci dëkk bii kenn gisu ko ci jàkka ji war nañoo laaj lu xew. mook jigéen ju fippu rek départ naan maye naa sama bopp ak parce que léegi am na ñuy luye ay pas dégg naa. <laughs> ah yeneen jigéen bu sëyee ba pare mën na maye boppam oustaz. am na ku ni ma woon bi may. sama benn xarit damay bañ a tudd turam nee na ma quatre pas laa wut pas bu ne cinquante mille. pour lan. muy deux cent mille. waaw. Ah. ma yónni leen ñu représenté ma fa ne ñooy sam pap paa bii mooy sam <laughs> paa bii mooy sama nijaay. ñaari pay yi ñooy seede yi. pour ñu takk jabar. pour ñu ñaanali ko. ah cent mille nga. réew mi lu ne am na fi. ah. ji ñëw toog ci salle bi ñeme yàlla def def discours. sama doom ji maa ko yar maa ko jàngal alxuraan maa ko jàngal métier li ma daj ci moom bis bii rek laa yàkkamti woon. te nit ki kilifa wërta maye njabootam kum xamul nit balaa nga ko jox sa njaboot di ko ko dénk war ngaa gëstu mooy kan ay dox daje yi xamante ñetti fan nga ñëw naan waaw moom il faut nga gëstu fi ngay dugal sa doom fan la kon donc question bi mooy ndaw si màgg na toll na ci war a sëy pour mu maye ko na ko yëgal baayam bu baayam joxee accordam ñu takk sëy bi leer na